trop c' est trop mbir mi dafa ëpp léegi. audit yi d' bu ñu sa jógee du auditer samay doom samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement procédure la respecté dañ ma ma dóor ay coups de sommation. la bëgg a rey yow yaa ko ëpp yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la. danaa ko yemale ci juróomi at. ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. télévision Futur Média mbokk yi ànd ak ñun ci euh, télévision Futur Média ak émission Faram Facce ñi ngi leen di nuyu euh, ñi ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce ni ñu koy amalee àllarba bu jot euh, ci waxtu bi ñu am mbégte tey di ci recevoir gan gu mag bokk ci parti socialiste amee kaddu bi nekk maire ca Kaffrine itam di Abdoulaye Wilane moom la ñuy recevoir mbokk yi tey ci seen spécial débat Faram Facce monsieur le maire maa ngi lay nuyu. maa ngi alaaji Pape Ngagne Ndiaye di nuyu sénégalaises ak sénégalais yi nga xam ne nii ñoo gan ñi dëkk ci biir réew mi daal télévision Futurs Médias maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal yàlla jàmm jërëjëf monsieur le maire maa ngi koy wax léegi amee kàddu parti socialiste xam naa dina jaaxal ñiy déglu parce que ñii jamono ji daf mel dañu gis parti socialiste yu bëri ndax mën nga bàkkoo rek kàddu bi yow yaa ko yore ci loo xam ni ci unanimité la maanaam lu ñëpp ànd la parce que tey dafa mel ni ci parti socialiste yu xaajoo la ñu nekk ndax mën ngaa wéral kàddu gi ne yaa ko yore ci parti socialiste. d'abord nga baal ma ma wax ne gisuma benn ndam bu nekk ci ne yaa yor kàddu parti. ba mhm. tax nga mën nit mën ko bàkkoo. Mhm. toog ak say nawle. ñu ëpp la xam-xam ci yenn domaines yi. waxin la rek revendiquer laa bëgg a wax rek. waaw moo tax ma waxin la rek waaw. waxuma tëggu bàkku. xam naa la bu baax a hmm. baax a baax. Ah, dégg naa dégg naa la bu baax. très bien waaye dama ne liggéey ci euh, euh, fonction la bu bu métti bu jafe. Mhm. Euh, dafa laaj gore. Mhm. dafa laaj dëggu. Mhm. dafa laaj fàtte sa bopp. dafa laaj ñeme ñeme goo xam ne li ko. lal mooy gëm yàlla wóolu yàlla waaye itam nangu nangu li nga xam ne moom nga nekk mhm. ndax lu waaye diw yoo da koy niru te ci alxuraan am na aaya bu yàllaay wax yaa ayyuhal lazina amanu aminu mhm. ey yéen ñi nangu na ngeen nangu wala yéen gëm na ngeen gëm borom kër gi am na soxna di ci jaamu yàlla ngir am njaboot yàlla dafa am lu ko sant la ko neex ala ko metti la cay bànneex ak lay naqar ci biir loolu da ko war a nangu porte parole bi ma yore càkkul ci samay loxo te du ci mujj mhm. ñi ma ko dénk am na ci ñoom ñu ma ko dàq am na ko yoroon yoraat ñoo xam ne nii ca jamono ñu ko yor def nañ ci ay taar. man nag monsieur le maire dafa mel ni dégguloo question bi. Hmm. waaw question bi dama ni porte parole bi man aw ma si lu may diingat. Hmm. ci yow bu amee ñu koy diingat ñi nga bokkal parti socialiste la. waaw foofu laa bëgg a waxee. xam nga maanaam xaajoo gi. ndax loolu wéral na sa porte parole ci biir parti socialiste. waa xam nga man maanaam da ngay loolu pour nga pour ma tontu ci. Hmm. dama lay wax ne la ñi ma dénk seen kàddu ak instance ak processus bi ñu jël ba dénk ma kàddu gi booba instance ak boobu processus rek moo ko mën a dindi. Mhm. lu dëgg. dëgg te ñooña déggaguma ca kenn ku ca wax jëm ci. d'accord amaan nag ku jiingat wala kuy xaram mbaa nga bëgg buzz nee naa wax jëm ci diw sàngam. Mhm. ngir bëgg ñi méngale ma ak moom ñi génn ko. man am na wax yoo xam ne ni dama du ma ci tont ndax wax yi wax yi kasaw kasaw la wax yi d'accord li ñu doon dégg mooy ay Aïssata Tall Sall moo amee kàddu gi yow yaa topp si moom ci diggante bi loolu moo soppeeku wala instance yi ñoo ko changé lan moo indi alaaji papa nga jël kàddu wax li ma xalaat ak li ma gis ci réew mi maa ngi ko tàmbali yàgg na ba may nekk élève mhm. ci lycée yi université ba bi ma créé CGCAS ak léegi ma yokkal la ci ne 2000 ñii ràkkum ràkkum yi ci rajo yeeg journaux yi di wax tey jii nii ñu bari dañ doon booraasu ci miir yi mbaa ñi dem di xar ma takk lijjanti yeneen mbir. Mm-hmm. booba temps ba nëgë ñi dañ doon wax ne Ablaye Wilane dafa sàggoog sagom wala ay bokkam duñ ko yedd lu ne daj naa ko ci ba ci ñëw lakk sama kër Kaffrine ba ci ñëw dawal oto ñëw ba sama kër papa fekk fa di ko saaga ak a tëkku. bi di ma dab ci mbedd naka di ma duma déglu mu baax li ma wax. waaw mais bu ma déglu tontu ci ma s'il vous bi nga xam ne 2000 ba nëgën ñii ñoo yore kaddu parti socialiste te ko ci yor ku ne. Mhm. maa ngi ñoo ma ko doon yor. mooy ñan Abdoulaye professeur Abdoulaye Limane Kane. Mhm. ak Aïssata Tall Sall. sal ak ñoom ñëpp. Mhm. kenn ku ci ne loo ca def su dul man maa ko waajal defar ko ne la kaay yekk. séddale boo tëddee sa njëgënaay ñu ngi may dégg. Mhm. ñu ngi may dégg seen i njaboot nga leen dégg seen i bokk nga leen dégg. Mhm. Mhm. yaa ngi dégg. ñeneen ñi sax nga xam ne nii après la ñu dugg ci wàllu ñi muy jàkkaarloog journaliste bu bokkul ak journaliste deta nga nekkoon ci nguur gi yoroon parti bi yoroon nguur gi di leen ki ñi ñëw ngay wax la nga bëgg a wax. ku ci dem ba miin bala nga mokkal wax ak journaliste bala nga ñemeen jege média yi yàlla ak man mu tuuti miin kon nag li ma nekk. su fekkonte ne parti bi jàppul ne mën naa ko mat naa ko duma ko def. dëgg monsieur le maire nag waa parti bi ñoo tey tey man nga fi dikkee man maanaam man wilaan man man rek nga fi dikkee. waaw xam nga ku wal ku wal mburu waaw d' accord mais d' accord mais non non dama la laaj mais li ma la laaj aussi monsieur mooy dama ni la porte parole bi mu ngi woon ci loxo ay Tall Sall ci liñ doon dégg. Abdoulaye Wilane moo ci toftalu ci ginnaaw bi lan moo ko changé instance la wala lan la. mais dama la wax ne la li ko changé mooy ne. kuñ jàpp ne am na ku la dàq mën la ko liggéey wala tey yow ëllëg sa morom tax dafay jaadu bu jamono jotee ka la dénkoon wóolu la bu la wóolootu ndénkaane ka nga wóolu waaw d'accord ndénkaane ka nga wóolu te dama lay bëgg la ñuy wax nag ak ay instance ah mais parti bi ak instance bu wóolu nit dénk ko dénk na ko dëgg la bu la parti ak instance wóolootu wóolootuñ la d'accord te it mais notifié nañ la ko quand même comment dañ la koy notifié aussi parti bi même ci bu dee ci assemblée wala ci dara bu <laughs> fekkee la non ma ne waaw président de la République wala njiitu parti buy dénk. nañu wax parti socialiste s'il vous plaît. dama la wax waaw parti socialiste dama lay wax. waaw booy wax ak aw am réew. Mhm. bala ngay wax ak ay nit. Mhm. yu wuute te bokkuñu fu ñuy jofiyee. Mhm. booy joxe exemple da ngay joxe exemple bu ñëpp mën a dégg. d'accord pourtant parti socialiste dañ koy dégg. waaw dégg nga dama lay wax dama lay wax man la parti politique bu mu mën doon. waaw parti politique bu mu mën doon. lay ne yow la ñuy jiital. wala ñu ne yow la ñuy dénk wàllu vie politique wala yow ñuy dénk wàllu agriculture wala yow ñu dénk wàllu économie wala yow la ñu dénk nga yoroon suñu kàddu mhm. mais du yaay yoo xam ne man maa koy nekk mhm. xam nga ka tay ma moom leen mhm. wóorul yaa ñu moom a gën a wóor waaw ak tay ma doy leen loolu yëpp leer na mais yaa ñu doy d'accord man de jàpp naa ne wax lu yomba defee accident la mhm. li ñuy wax ca Kajoor war gëléem donc du usurpation maanaam foqar ci toogu jàmbur ci porte parole ni nga toogee nii ni man maay porte parole lu parti socialiste di ko revendiquer non du usurpation parce que ba ñu koy jox moom moom ngay tudd waaw mu yore porte parole la parti bi loolu ko teree tudd monsieur le maire mm, mm, wek d'accord non wek ak orma <laughs> ah déedéet wek ak orma dama la ba ñu koy jox Aïssata Tall Sall voilà bu dee da la neex. déet mais war ma te nit ñi mën ko gisee jéppi aussi. waaw dama ne rek ma ne mhm. moom ngay tudd. ay total sàll. dañ koy dénk cadre parti bi sa général d'union régionale la woon. Mhm. man mii nekkoon adjoint secrétaire général d'union régionale la woon. Mhm. ma nangu ko. ndax àdduna pouvoir avoir savoir lépp humilité en tout circonstance xam-xam mën-mën ak sañ-sañ humilité la àndal. dama wax ne la ñi may wax loo. bu dee wàllu agriculture da ngay toog ay ingénieur agronome ñu naan la lii la ñu war a wax waa askan wi wala lii la ñu war a wax réew mi nga ñëw wax ko te doo nekk ingénieur agronome mhm. ay économiste wax la ko mhm. ay juriste wax la d'accord donc mbir mi du sinécure ndax ci dolli mhm. parti socialiste yëpp ñu ngi may dégg parti socialiste yëpp ñu ngi may dégg man bi ñu ma koy jox dëgg dëgg yàlla joxe woon naa ngànt waaye lañ ma ca tegal yaa ñu doy yooluñ ci wóolu ku mu doyul as gor d'accord te dama lex na la honneur weesuwul. parti bu toll ni parti socialiste nga yore par parole am di communiquer di impacter ci ñu tuut ñuy màgg ak mag ñu la doon seet di la topp démb barki démb. lam mën a jur yàlla na nekk loo xam ne nii euh, dëël la bu suñu borom dëël pour am yoon moom lay xalal. di wax ci wax président de la di wax ci waxu borom xam-xam. soo dul président de la République doo borom xam-xam yàlla am na lu mu la séddee tuuti. tey defe naa ne waa parti bi xam nañ ne mosuma njaalo mbala ma jaay intérêt wu parti bi. pour quel soit quelque dinañ ñëw ci loolu dinañ ci ñëw monsieur le maire alors c'était dafa amoon fare ñu campé ko quand parce que aussi euh, en tant que porte-parole bëggoon naa ñu campé waxtaan bi mu gën a leer que nga revendiquer ko nangul ko sa bopp ni yaay porte-parole officiel du parti socialiste ñi doon dégg ni ay Tall Sall itam moo ko nekk te dégguñu fenn fu ñu ko fa démettre loolu yëpp ñu am ci lu leer loolu laa soxla woon donc euh, je pense li nga ci wax dégg nañ ko monsieur le maire ñu dem Kaffrine parce que mënuñu fa bañ a dem foofu euh, daanaka mooy fii nga xam ni ci coowu taw ak nawet ak mbënd fa lañ ko njëkk dégg nga tëgg sa gémmiñ bi nga tëggee sa gémmiñ itam da nga ci boole wax ay wax yu ma jàpp bi ci jiitu mooy lii de Kaffrine mérité wu ko ndax saa yu président de la république laajee jox nañ ko ndax noonu nga ko waxee. waaw dama wax ne Kaffrine li mu mérité mooy solution durable saafara bu sax dàkk. musal ñu ci loraange. d'accord ak euh, métti ah. métti yi nga xam ne nii. mais yokk nga ci saa yu président soxla maa ngi ñëw jox nañ ko. waaw ah, mais xam nga. Mhm, d'accord. danga xam ne da nga yàkkamti ndax temps bi moo. moo moo ñu voilà voilà comprendre nga ma merci. voilà mais dama wax ne. Mhm. Euh, lii mérité wuñ ko. Mhm. amul benn askan wala benn peuple bu ko mérité ci Sénégal. benn côté local waaye dama wax ne alal ji nga xam dañ ko jëloon ci xaalisu réew mi. ñëpp bokk. tabax ci plan Jaxaay ci jamonoy Ablaye Wade fukki at ak ñaar. at mu jot mbënd am soxnaam ñëw na fa ay doomam ñëw fa ministres yi yëpp ñëw nañ fa. président premier ministre sax ñëw na fa. ñu danañ ko réglé danañ ko réglé danañ ko réglé bi ma nekkee maire benn Macky Sall nekk président mbënd mi amoon en 2013 chef de l'état Macky Sall dafa joxoon ay ndigal ak yéene ak nisër am programme ne yemale gi muy yemale askan wi la tax ñu jël xaalis réew mi def ci plan jaxaay def ci cité Tawfeex yi dinañ ci boole dëkk mel ni Kaffrine ndax. bind melokaanu Kaffrine mhm. cuvette la te am na ñoo xam dañoo dëkk ci ay déeg wala place su déeg wala yoonu ndox mhm. muy point bas am na Kaffrine 2 boori bàpp ga ak li jëm ci yoonu dégg kafrin déeg raay te euh, ak déeg ngëlëmu mhm. am na yit ci biir escale li nga xam ne ni moo jógee ko ci boori déeg carrière ba ba nga yegg CM Babacar Kobar Ndaw romb hôtel ba dëgmal fi gouvernance bi nekkoon bañ ñu toxal gouvernance bi xam nga dañoo toxal gouvernance Kaffrine ndax fa mu nekkoon at mu jot mu bënd ñu toxal ko nga noonu escale boo wéyee ba ci boori dégg yama dal ak dégg raay ca ginnaaw yoonu Kaolack diggante Kaffrine ak Kër Baabu am na fa ay xunt ak xur yoo xam day dog ni mu amee ci yoonu këy wi boo rombee euh, euh, euh, Piey ak Bamba romb kër Sëñ Basiru Mbàkke ñuy wax ne noonu la école cinq Kaffrine jàmm gën centre. ak euh, jàmm gën TP boori école 7 jëm ca boori. Euh, Halum la foofu dafay am ay xur. président ne woon nag il faut que am ñu jogee ci seen kër yi ni ko borom xam-xam yi jàngate ba saytu ko. ñu ñooña ñu wutaleen ay kër tabaxal leen ko kër yu bakkane ñoŋ ànd ak jamono ndax dinañu defal canalisation assainissement marché dispensaire ja bérébu jaamukaay yàlla ñu nekk fa te foofa dafa tali du taa te it dana oyof danañ ci def ba defar ci loo xam ne sax bu weesoo ñooñu président waxoon ba tey defuñu ci dara loola nag en 2014 waaw ci bëggoon Abdoulaye Wilane du faluwaat nekk maire am na waa APR yoo xam ne nii loolu lu leer la ñoo ko dox ak gouvernement bi ak ministre ba ko yoroon ba loola ñu fomb ko ba ko président yëgee naxaji na ko mu baamtuwaat ko bi mu ñëwee ci conseil bi xam na ne problème numéro un wu Kaffrine inondation bu ci njëkkul da koy ànd ak beneen ndax fàttewu man liggéeyu xale yeeg yeneen ak yeneen ak wàllu mbay meeg gerte gi mais 2014. monsieur le maire li ngay wax nii nga baal ma nag mais dafa yo dafa yomb nga baal ma. parce que itam lu toll ni président de la république joxe ay instruction nga bëgg ko jiiñ ay waa APR ay gouvernement naan ñoom ñoo def seen ay mën-mën ngir bëgg la xeex loolu moo tax la président yéene woon en tant que président de la république loolu amul ci sa localité. El Hadj Pape Ngagne Ndiaye man dama bëgg a nekk nitu dëgg. waaw nit bu demee ci réew ma ne damaa bëgg a liggéeyal réew mi jaamu yàlla soxla jaamu yàlla soxla réew mi pour texe. non c'est-à-dire damay damay bañ aussi nga bëgg nga ngay défendre président de la république pour taxal ñeneen aussi. dama lay rek. waaw maa ngi ñëw du ma naafeq su dëgg mhm. daa nag waaye nag li ma gëm mooy xulu xaq wala kaana mu ran président de PIC ci réew moo dem ci adduna bi danaan lii laa bëgg autosuffisance alimentaire wala emploi plein emploi de jeunes wala lutte contre les injustices wala nangam nangam wax ko mhm. ñi nekk ci wetam cabinet mhm. ñoo koy xalaatal le def ko programme ak plan d' action gouvernement bi gouvernement bi def ko programme d' kenn ku ne ci gouvernement bi ak chef de service yi. centraux ak décentralisé moo xam au niveau régional wala au niveau départemental kenn ku ne da nga am tâche ak ay mission yoo war su sooxee ñooña la. parce que ñoo matul wala ñoo mënul wala su sooxee taw. ki leen tànn nag te ki leen tànn joxu leen moyens yi. Mhm. ñoom it war nañu am fulla ak fayda bu toll nii taxaw wax ne lii la. Mhm. aw askan nag boo ko yoree di ko jiite di ko liggéeyal njiit li mu fal yaakaar ko dénk ko soxlaam tey ëllëg ak alalam ni lii la leen di defal. su loolu sottiwul yow yaa war a wax nit ñi. Mhm. loolu sottiwul. d'accord yow mi ko teg sa loxo. Mhm. foofu laa toll man. d'accord niveau de responsabilité mënumaa tëb ne man président la ko dégg ko. la preuve bi inondation yi amee en 2013 daa woote ci rajo Kaffrine taxaw bu mat sëkk moom mu gëm ne toog saa yu mbënd la nga ñëw dimbali séddale ay matelas ceeb diwlin. d'accord eau de Javel ma ngi xaalis du loolu mooy saafara bi. d'accord nee na dafa bëgg ay solutions structurelles durables. d'accord ñun ñii ñu xam ko waaw. ba mu dàpp d'accord dañuy jàpp li ñu am plan directeur d'assainissement ñi ngi mhm. yoo xam ne ni ci diggante bi loolu di sotti danañ ko def ci wetu ci pourtour marché bi loolu ONAS moo ko war a toppatoo ak poste santé jàmm gën centre bi mhm. mais bi mu moom ci boppam bu waxee loolu su fekkee ne sottiwul bi mu annulation yi amaat ren dafa woote immédiatement conseil conseil des ministres mhm. ku ñu dégg na ndigal yi mu joxewaat ndigal la mën a kàddu nag ak baat moom la njiitu réew ak kilifa am ak kilifa gu mu mënti doon mhm. baat ak kaddu la am d'accord def leen nangam yow mi ma te ki la ki jox nag sañ-sañ ne liggéeyal ma li mu bëgg nga koy def ku la abale bët fa ko neex ngay xool mhm. donc loolu laa wax ma wax ne nag dama bëgg ñu wax lu tax yemele wuñ doomi Kaffrine yeneen ñi nga xam ne jërëjëf nañ ci loolu mhm. d'accord parce que man bu ma njiitu réew waxee bu gouvernement wax ma man jàpp naa day nekk d'accord monsieur le maire d'accord loolu laa xam monsieur le ci leneen li mu bëgg ñu ñëw ci mooy euh, tungu ne du teew ñuy nataal wala ñuy natt ci ëkk. loolu la wax monsieur le maire yaa ngi Kaffrine président de la république ci localité yi mu njëkk amal conseil décentralisé wala délocalisé ci Kaffrine la bokk jël fay mesure xayma koppar yu bëri yi nga wax ni ci la bokk waa Kaffrine ñoo lay xool lan la fa président wax ci la mu digaale woon lan la fa. d'abord ma ma rectifier. Mhm. Kaffrine ñetti région ñaari région rek la la def conseil des ministres. Mhm. muy Fatick ak Ndakaaru mhm. maa ngi sant yàlla di gërëm waa Kaffrine parce que la ñu waroon ñun bi muy ñëw dañ ko defa mat sëkk mhm. moo wax ne tertu bi mu am Kaffrine amu ko fenn y compris Fatick dëkk nekkoon fa maire te région Kaffrine li mu tumaranke li mu manqué li mu ñàkk bëri na parce que démb nag dégg ngeen premier ministre nee na ci jamono yi muy xayma fu def-def yi ak toll ak diggante diggante def-def yi ak diggé yi nee douze pour cent lañ la toll loolu nag duma ci def benn commentaire waa Kaffrine ñu ngi may dégg la leen waroon ci teertu président bi ormal ko sagal ko big ña ngi koy def la waroon sax ci jokk résultat yu mag ci référendum bi dem nañ ko 12 pour cent lañ fa def. waaw léegi nag bi ñu ngi leen di bàyyi ak seen bopp ak seen conscience ak soxlaay waa Kaffrine. Mhm. foofu laa ci toll du ma ci wax leneen bëri. non man loolu daf may jaaxal parce que bu fekkente ni danga nekk premier magistrat ci ville ba ñu président de la. république ñëw fa yàlla bu baax ah, waaw la république ñëw fa def ay promesse def fa 12 pour cent ci lu jege ñaari at wala ñetti at nga taxaw waa Kaffrine naan loolu duma ci commentaire aw ma ci lu ma neex aw ma ci lu ma naqari aw ma lu ma ciy wax. alors que tubaab ne qui ne dit rien consent. ndax loolu da nga ci ànd ak ñi nga xam ne ñoo ko diggee woon. non dama ne. waaw man kilifa laa bëgg doon xaw ma ndax mat naa comme déet te moom moo sama bopp parce que askanu Kaffrine ñoo ma fal waaye nag li ma war sama diggante Kaffrine mooy taxawu leen wax fa wax wareew te tey fii ci média la nekk dama ne kilifa ku ko yedd ci pénc mbaa nga xas ko ci pénc def nga loo warta def wala nga def njomme waa musiba dama ne ñoom ñoo fa ñëw digge nañ fa ñun nekkuñ ci gouvernement bi mm-hmm. doomi Kaffrine nekkuñ ci gouvernement bi du Koungheul du Malem du mm-hmm. Birkilane mm-hmm. ci bureau assemblée nationale du Koungheul du Birkilane du Malem du Kaffrine nekkuñ ci bureau au conseil euh, conseil économique social et environnemental du Koungheul du Kaffrine du Malem du Birkilane kon ñun mënuñu lu dul bind bataaxal wala laaj audience wala coow fi ñu war a coowee wala wax fi ñu war a waxee. Mhm. te am na loo xam ne wàllu askan la wala wàllu jaboot la waaye am na loo xam ne nii ni wàllu kilifa. Mhm. dama ne loolu Sénégal waa Kaffrine yi néew dama ci maandu dama ne ñoom xam nañu sama xalaat ci loolu dama ne ñun lañ ko diggoon lañ ñun la ñu waroon li ñu war ci réew mi mooy fal président faral ko ay député. Mhm. muy liggéey ñi expliqué li muy def te di ko défendre. d'accord muy ñëw Kaffrine ñu tett ko tett bu amul fenn. waaw yaa ngi ma dégg. Mhm. mu soxla référendum jox ko voix yoo xam ne amu ko fenn ndax ndam li mu am maatam ak Fatick. Mhm. la la ko nekkal ci ay doomi Fatick ak maatam yu mu jox ay cër. Mhm. amu ko Kaffrine. wala defalu ko waa Kaffrine. kon nag bu ñu déggee toog ba tey bi ñuy ma ñu ne région yëpp Kaffrine dong moo ci toll ci 12 pour cent loolu duma ci commentaire dama leen di bàyyeeg xam nañu. li lan la ci maintenant nag feeg feeg app ba. moo xam 2017 la. d'accord moo xam 2019 la ko Kaffrinois waaye ñooy apprécier en fonction des résultats yu ñuy gis sur sur sur place. d'accord d'accord le maire euh, loolu itam fale ñu taxaw foofu euh, ci beneen ponk bi nga xam ne bëgg naa ñu ñëw ci nag muy ci wàllu politique Benno Bokk Yaakaar nga xam ni parti socialiste def ci bokk euh, te itam du ci du ci maanaam du ci lu tuuti. ndax euh, taxawaayu parti socialiste ku ko xam ci coalition bi ak leaderam ak euh, dayo parti bi nga xam ni parti bu taxaw la euh, boo ma doon évaluer ànd bi ngeen ànd ak président ànd bi ngeen ànd ci biir Benno Bokk Yaakaar lan nga ma ciy wax. li ma xam mooy ba ñuy ànd tooguñu ne programme bi yow li nga ci indi kii la ci indi Sénégal ak may dégg. parti socialiste dafa doon wut baatu réew mi am candidat samp ko ànd ko ñeneen ni ko yeneen parti amee ak yeneen groupe parti mhm. président Macky Sall ànd ko ak partem ak yeneen groupe parti ñu dem élection premier tour yàlla ak bëgg-bëggu Sénégalais yi def mhm. Macky Sall nekk deuxième tour mhm. jàkkaarloo Abdoulaye Wade ñun laata ñu dem premier tour suñu parti ak suñuy kuréelu parti ñu ne tout à fait ku dem deuxième tour ngeen jàppale la ñuy jàppale sans condition ba mu ñëwee seet si encore far plus président Ousmane Tanor Dieng. yàlla boole na sans condition ci biir ak ci biti. ma ne sans condition. ba ci biir la woon ak ci biti. sëñ bi waaw ñun xamuñu wax ci ko wax ci su d' accord yaa ngi ma dégg. nangul naa la ko monsieur le maire ñu toog. Mhm. bi muy seet si Ousmane Tanor Dieng. Mhm. rue Calmette. Mhm. juróom-ñaari socialiste wala juróom-ñaari ñi àndoon ak président coalition Benno Tanor te laa bokkoon ñu ko fekki. maa ngi ciy gërëm bu baax président Tanor Dieng ak ñoom ñëpp. lañ fa waxtaanee amul dara lu jëm ci. jox ma lii ma jox la lii dama lay jàppale nga ma lii wala nangam nangam nañu respecté li peuple bi décidé respecté dogalu yàlla waaye itam yéene kon sawar bu baax ci li ko li ko. d'accord mhm. ñu ànd fala mu ne. Mhm. du ngeen xam ne du ngeen ma gën a gore dañuy ànd gañe ànd yorandoo réew mi. Mhm. te boobu nag loolu ma ngi am. ñun ñoo toog it suñ parti yeeg parti yëpp ñoo d'accord ne kenn ku ne ca lam tekki ci gox yeeg gox goxaan yi. dañuy seet fu mu mën a am candidat député wala fu mu mën a am ay député ñi boole suñ doole def ko critère bu valable ñu am ay député député ñu am du luñ ñu sédd luñ tekki la ci base bi mooy ñu nekk assemblée nationale boobu ba nëgg ni ñii ci bureau ñii ci député assemblée nationale te falu ci coalition benn bokk yaakaar yeewuñ ci kenn tëgg ci kenn mbaa ñu lu euh, euh, ñuy waxati takk bët muur bëtu kenn fas nante sa loxo ne la da nga ciy ànd yow da ko da ci nam mu ca yebu ca la kon man tuuti naa pour wax ne léegi laa ñoom ña ngi ñoom mën nañu apprécier ndax liggéey baax na wala baaxul. ñi dem élection locale. élection locale fi ñu mën a déggoo ànd déggoo nañ fa ànd fi ñu mën a déggoo ànd wuute ñu gis-gis ñi xaajaloo wala ñeneen ñeneen kon li ma gis mooy ne ànd bi ah bu fekkente ni pour liggéeyal Sénégal ak fonk sa kàddu moo ko waraloon ñi ngi ci mi ngi dox. est-ce que li ci waa PS mën a séntu lépp am nañ ko ci. Mhm. déedéet amuñ ko ci. est-ce que ci waa APR mën a séntu am nañ ko ci déedéet amuñ ko ci est-ce que li ci waa AFP bëgg séntu yëpp mën na séntu yëpp am nañ ko ci amuñ ko ci déedéet amuñ ko ci. waaw parce que loolu mooy ànd. monsieur le maire dañuy dañuy faram-fàcce dañuy waxtaan. waaw man ku la naw laa vraiment ci sa njàmbaar. te itam wax dëgg yàlla loolu yaakaar naa ñi nga xam ne ñooy seetaan loolu itam bokk nañ ci bëgguma nga dem ci ci ci ci ay généralité bëgg wax loo xam ni da nga koy laxas te du leer ci nit ñi dama la laaj. su boobaa yow yaa am rôle nga baal ma voilà nga baal ma mais dama la laaj nga évaluer ci lu positif ak lu négatif lu ñu mën a teg loxo. mais li coalition bi benn bokk yaakaar. loolu li ma la bëgg a wax clair quand même s'il vous plaît wax li ma la yëpp li bëgg a wax. mais loolu loolu loolu moom euh, c'est c'est important. ok mooy jeunesse bi. jeunesse boobu. Mhm. conclusion jeunesse bi mooy ne. Mhm. coalition bu yàggee nii mucc ci ay rendez yu délicat yu fi jaar mosu fa am. Mhm. ndax li ko tax mu mucc ci ja yàgg nii li ko lal du séddoo cër. du sangal ma fii ma sàngal la fee. Mhm. intérêt réew mi la. Mhm. Mhm. te nangu kenn ku ne ak ku ne la réew mi sañ-sañ ak ak yelleef bi la charte réew mi jox. d'accord donc su ma la déggee Abdoulaye Wilane amee kàddu parti socialiste waa parti socialiste di la déglu amul dara loo xam ni parti socialiste am na ko lu mu dingat ci coalition bi. yow nag yow nag soit da ngaa da ngaa da ngaa tëx wala danga ngaa déglu li mu wax. te ñaar yooyu bu mu ci mënti doon. wala dama bëgg mu leer. <laughs> Ah, dama bëgg mu leer. waaw kon nag jërëjëf ma jàppee ko ah, boobu. dama mu leer rek jërëjëf El Hadj Pape Ngagne parce que Senghor Abdou Diouf daan naa ne de deux interprétations il faut prendre la mhm. ah, da ngaa bëgg la wax ne la. Mhm. ku la wax fii ne la PS lépp lu mu doon séntu ci ànd bii ak ni ñuy doxalee am na ko waxul dëgg. Mhm. lu mu doon séntu te amu ko ci. non mais mais loolu du lu ñuy wax. nii dama ne la am na ñu chaque jour nga dégg ci bi parti bi ñu ci bokk ne bu doon sa sago ju demee nii ak na le te loolu mënoo ko wax fii yow. mais est-ce que man sama rôle mooy taxaw di waxal sama bopp wala waxal parti bi est-ce que man dana ja dana rafet ci man nawle boo xam dañu am fu ñu toog di waxtaan di waxati dëgg ma taxaw di ko wax wala may koy yedd ci biir pénc mhm. loolu man mënu ma ko jikkoowuma ko yarewuñ ma ko. te nag lu waay di wuyoo du koy ñuru d'accord dama la wax ne la ma ne kenn ku ne am na lu la neex ak lu la naqari ci ànd bi Sénégal ci boom sax am na lu la neex ak lu ci ànd bi man ànd PS ak man PS ci biir benn bokk yaakaar laay wax wax dama la moom laa la ma ne la ñu mhm. mu amee ci biir PS ñu ci am lu leen ci neex ak lu leen ci naqari ca kaw fa seen xam-xam yegg wala boog ca kaw seen yëg-yëg fa mu yegg loolu noonu la amee ci parti APR noonu la amee ci biir AFP noonu amee ci biir ànd jëf noonu la amee ci biir PIT noonu la amee ci biir LDMPT waaye li am solo mooy liñ déggoo te jàpp lii baax na mën nañ ko def nañ ko def lañ d'accord nañ ko teg fële ba waxta saafara ko jot ñu saafara ko mm-hmm. waaye tey comme neex comme naka di njiitu réew mi moom la Sénégal may sañ-sañu mu devenir la de la nation te mm-hmm. ba ñuy ànd amul kenn ko waxtaan ak moom ci condition bi wala critère bi nii mm-hmm. lu fi am lu ne da koo neex ku ko ci kum ko defal ku ne wala mu seq ko yow ku ne da nga koo nangu. yaa ngi dégg baax ma la. tout à fait loolu moo fi nekk te nit dafa war assumer responsabilité am. Mhm. nit doo toog ne situation day jot rek ñoo xam rek nga ne voilà wax neex na ci rajo yeeg télévision rek nga wax loo neex. Mhm. Sénégal yi may déglu ëpp ma leen xel. te comme xam nga ko baax na. comme xam nga ni ëppoo leen xel ñu lay déglu xam Abdoulaye Wilane di ko déglu. mais comme jàpp nga ni te it xam nga ni ëppoo leen xel je pense que loolu c'est important léegi leneen li nga xam ne bëgg naa ñu taxaw ci mooy coalition bi dafa am ñu jàpp ni xaajoo ak réeróo bu am ci biir parti socialiste Benno Bokk Yaakaar moo ko indi kon loolu ndax mën nañ ko delloo ci jàngat bu négatif ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci loo xam ni indi na ko ci biir parti socialiste. man damay wax parce que ci rendez-vous yu bëri yooyu wax bu ci dem ci jotee ci la xaajoo bi di am ci biir partie socialiste. waaw xam nga kon jamonoy bëgg-bëgg nga wax ne bu amee. lu dëgg seetlu bi nga seetlu. ma ne bëgg-bëgg am am bëgg-bëgg aayul bonul jaadu na. waaye olof day wax naan bëgg du mat ngor mat xel mat sago mat. te ku dul may sa bopp nag war ngaa tey ci ni ngay bëggee. li ma xam mooy tombe de danay waral gaaf. waaye jafe-jafe ñu parti socialiste. am na yoo xam ne ni am na lu jiitu. Mhm. ñi ànd ak benn bokk yaakaar. Mhm. te nag génération spontanée amul. Mhm. génération spontanée amul. waaye man sama cër mooy nekk porte parole du parti. bis bu ma toogee ci biir instance parti bi nag am naa ay jàngat yoo xam ne nii dana tax nit ñi xam ne lu bari lu ñuy wax wékk ko ci nekkinu u ànd benn bokk yaakaar bi. nekkul lu dëggu. xam nga lu ma lu ciy firnde bi. d'accord dama wax ne parti bi. Mhm. ñetti député à l'Assemblée nationale ci turu benn bokk yaakaar tëgg jëluñ leen tënk leen yeew rek ne dem leen bokk ci. Mhm. kuñ ñu demal bokk ci te bëggoo cee bokk doo ci bokk soo respecté sa bopp. Mhm. ndax lu waaye di wéy du ko niru du dëgg. d'accord waaye <clears throat> ñu nee na waa parti bi décidé lan la ñuy def dañuy dem sël dañuy ànd mbooloo ak man mbooloo la ak ci ban anam la. ñu ne léegi coordination bu ne gox bu ne na wax moom na mu gisee ni ñuy def dootul nekk sax bureau politique wala secrétaire exécutif wala comité central rek vingt sept mille six cent nangam personnes ñoo koy def dëkk bu ne département bu ne wala coordination bu ne deux cent personnes ñi ko jiite ñi ci gën a am kalifa mu kalaf daje waxtaan. te ñëpp du ñu ànd ci d'accord est-ce que coordination bi def nañ ko te dañu joxe àpp ne fii ba le vingt quatre wala gën ngaa sori fin mois bii. Mm-hmm. man de sama coordination coordination Nganda ak sax coordination ñibbi nar naroon nañ ko def ñoom jatu leen fekk na soccet banque ay tànkam ñun def nañ ko ba résultat yi génn waaye Sénégal nag dafa am lu fi yàgg. lamb sax bu amee ba jeex nga dégg ñu ne non non non arbitre daa juum wala daanu ma da nga gis mbër mu daanu ba xalangu jóg taxaw naan lu xew waaye bëri na ñoo xam ne ñu ngi wax di tudd ay nit seen i nawle ànd na ñoom démb barki démb. su fekkente ni dañoo bëgg askan wi wóolu leen lañ war a njëkk a defar mooy defar rafetoo defaroo ak seen seen waa kër ndax bennoo ci diggante xelu nit ak xolam la gën a jekke mhm. bennoo ci cëri doomu aadama la gën a jekke moom ci boppam bi yow mi ngi ci sa xel sa yéen itam bokk na ci loolu laay wax nii non non maa ngi maire dama ne dama benn bu weesoo tey kenn musula dégg nga wax lu jëm ci defaroo bi ci biir ah, parti ah, ah, socialiste déglu rek rek déglu rek ça dépend ci li may laaj ak fan ak ban ban jamono lay wax non kon loolu daf ci am defaroo ak defarante daf ci am ma yeggali ma ne Benno mi ngi gën a mi ngi jàkk waree dàqe ci yow sa bopp ca dëgg yaa ngi dégg mu ngi dàqe ci biir diggante jëkkër jabar d'accord naa ci mi ngi dàqe ci biir famille mhm. mi ngi dàqe ci biir askan waaso ci biir parti njëkk ci biir parti d'accord waaw léegi nag su fekkee ne nag nit ñi dañu jóg ne bu pal jotee ñoom buñ falawul parti ba tas wala ñu fekkee ne parti bi day tànn bu parti bi tànn liñ bëgg ñu def lu leen neex réew moo dem te dëgg amu fa jàmm du fa am. mais sañ nañ ko ci seen parti bu dee parti démocratique. non ma ne déedéet déglu bu baax li ma lay wax démocratie du def loola neex démocratie mooy bu ñu dajee wax ñi ëpp ci mbooloo ma ci lim. Mm-hmm. lañ ànd nga nangu gannaaw boo waxee sa point de ba pare ànd ca. Mm-hmm. parce que soo ko defulee tey. Mm-hmm. parce que liñ dogal neexut la wala gënul la. boo légee bu dogalee loo xam dalaa neex. bu mbooloo ma jege woon la gannaaw foo jëm. adduna nii la yaa ngi dégg. bu doon kenn ku ne li nga bëgg rek mooy am kon jafe-jafe du am te dama leex wax benn affaire am ban parti nga gis boo xam ne amul jafe-jafe ci biiram démocratie Sénégal day gën a yokk gën a nit ñi gën a yeewu léegi jam gën nga léegi jamonoy nandité lañu nekk jamonoy anti undaas monsieur le maire kii musootu fi ñaan ñeex de jafe jafe-jafe yi ñu gis ci biir parti socialiste non li nga gis ci yenn gox ci yenn parti socialiste yi ma gis ci biir parti socialiste lay ah wax man gawuma loolu gis ko fii ci maison du parti waaw loolu am na lu am maison du parti am na mën nga ko askanale ci parti socialiste ba yoon am ci wàll waaw loolu moo am gisuma ko ci benn parti politique fii may waxee non attends jëf ma ne waaw moo taxit loolu lu ñëpp naqaru la waxuma sax waa parti socialiste mais démocrate yi citoyens sénégalais yi sans parti sax loolu leen naqari daf leen bett ñun daf ñu bett ñu toog di waxtaan ay kàngam du toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukki kilifa nank parti bi góor jigéen mag ndaw toute génération mu kalaf waxambaane jagamaar ñu toog di waxtaan xel ak xel nga war a yey nit ki ñu jékki ay nit ñu ne ñun ñoom suñu bopp lañ bokk sooke ay nit ñu ñëw bëgg ñoo fagagal loolu ku ku ku contre violence politique moo xam violence verbale la wala violence physique la da ko war a condamner d'abord su fekkee da laa bett nag da ko war a saytu ba xam lii nu mu dikkee non seulement da nga ko def pour intérêt parti bi. faagaagal boo waxee faagaagal mooy lu mel ni ngànnaay ma nga ca woon. bëgg a lor. man non man lu mel ni ngànnaay ma nga ca woon. loolu kay gis ngeen ko seen télévision <laughs> non ci suñu télévision bi liñ ci gis. télévision yëpp ñu jël ndox di ko sànni ñu jël suuf di ko sànni. gisuñu ko yor fital gisuñu ko yor paaka gisuñu ko yor jaasi. Oh, faagaagal nga wax non damay bañ nga yóbbu ko ci niveau boo xam ni mooy layee pourquoi mu dem ci yoon. ma ne waaw ma ne gis nga aw saaga sax ku la ko def yoon am ci wàll. d'accord du dëgg. ça dépend su ma ko baalul. tëkku ku la ko def su ma ko baalul ma waaw balaa ngay baal da xam ki la baal. d'accord kan ki ngay baal. d'accord kan la. Mhm. lu waral ak lu undu la muy def. d'accord monsieur le maire yow ku xam euh, Ousmane Tanor ndax comportement bi nga xam ni moo xew jamono ji ci partie socialiste du jox dëgg ñi ko jàppee nistu xàjjale. ndax itam ci lu bëri ci lu ñu fàttaliku bu ñu xoolee rétroviseur bi dafa am ñu jànnoon jamononteeloon ci partie socialiste ñu bëri bu ñu bàyyee moom la ñu sikk ndax bu ñu demee ba si fii ay coow bëgg am ci biir parti socialiste fekk moom moo ko desee du jox dëgg ñi jàpp ni moom du nitu booloo du nit buy boole nit buy xàjjat la. waa xam nga olof daan ne ku ji ku ku boot bukki xaj baw la waaye ak a neexoon ni ko Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla yokk ko wér ak barkeeg baatin mhm. bu Sénégal yëpp jëriñoo adduna bi ak jullit ñi na wax naan Issa da ngay woot bukki bukki ba wàcc soppalu ko xaj la bëgg ñëw yëgaat ñool d'accord non nga am sa génération ci parti dem bañ bàyyi la parti bi nga desee ñeneen ñu dul sa génération dem ba parti bi nar a tasaat ndax yow warul ndax loolu laa lay laaj yow xam nga nit ki ndax loolu du jox dëgg ñi ko jàppee nit musiba waaye am na ñu ma gën a xam li ma la mën a wax li may laaj kon dafa leerul ci dégg naa la a la mhm. loolu am loo xam ne boo ko laaj ko laaj ma waaye dama la mën a xamal mooy mhm. Ousmane Tanor Dieng am nit da ko xam responsabilité am ku xam devoir am. boo bëggee suba yebalal TFM ngeen def def dem ngeen dem filmer maison de parti na mel heure bii. nga xool lam fay def. boo bëggee nga dem wër Sénégal laaj leen bi 2000 ba dëgg nii. suñu bi tellu ak nu muy mel ak nu muy tey jii ñi ngi tëb di xarab Ousmane Tanor Dieng ah, ngir bëgg a falu mais boobu itam waaye déglu solo bi ñu amee Ousmane Tanor Dieng itam dañu am Abdoulaye Wilane ci wetam am keneen ak keneen ci wetam. waaw ma ne loolu loolu weddiwuma ko loolu dama lay wax. Mhm. waaye man li ma bëgg nga xam mooy man du ma xarab suma kilifa du ma njaaloo kilifteef ni ma waxee waa senegal ak wax suma njaboot ne maag parti socialiste ba pikk ak peel laloon ndeyjoor tëdd njigi noonu laa lay waxee itam li nga xam ne ni moom laa gëm dama ne la ñi nga xam ne tey jii nii. Mhm. ñooy xarab Ousmane Tanor Dieng ak a diigan Ousmane Tanor Dieng. bu laaj leen seen akulay taala balaa nga laaj seeni njaboot seeni i soxna ak seen doom. Mm-hmm. ñu wax la fu ñu jaar Ousmane Tanor Dieng ak luñ séq ak moom. Mm-hmm. te fii kat suuf fu fi si dañ ko jàll. waaye dama la xam ne la man bëgg-bëgg. Eh, am na ñuy wax ni moo la jàll de foo egg ci parti bi moom la. de toute façon moom ci boppam njiitu parti moom mu wóolu jox ma kàddu parti bi. Mm-hmm. te it maa ko tànn ne ko yaa ma doy nag. maa ko njëkk tànn man. du dëgg. d'accord li ma doon sama cabri ku mu neexoo ku mu nag xëy na wala kan mu ran. Mhm. kenn defoo ko mu dul waa Kaffrine. dëgg la. du kenn ku dul waa Kaffrine. Mhm. mosuma am salaire ci parti socialiste. Mhm. mosuma nekk ci nguuru parti mu parti socialiste it mosul maay fal fal boo xam ne maa ràññee ci réew mi jël ma jox ma cër na ma kaay liggéeyal Sénégal wala nangam. la ma nekk nag fa la ma dëkk Kaffrine. ba xam nga ne liggéeyal Kaffrine jaamu ci yàlla ba liggéeyal Sénégal moo ma tax dugg politique. du beneen dëkk du feneen te bis bu ma ci àggee foo xam ne nii def naa ci Kaffrine wala mel ak waa Kaffrine lu tax Sénégal liggéeyloo ma ci yeneen gox d'accord boobaa dinaa ko def waaye nag dama bëgg nga xam ne mhm. euh, wax dëgg dinaa koy def mhm. te loolu moom xam na ni yàlla xam na ni loolu mooy li ne d'accord te ñoom ñëpp it nag ci parti bi mhm. amu ci kenn koo xam ne nii da nga mën ngaa taxaw ne yàlla ak man mel nu Mamadou Diop du di ko nuyu te du ma ko fàtte ba bu may tëdd suuf moom moom wutal liggéey ci parti socialiste si la mos na contribuer sama jàng bitim réew. ci mhm. ndigalu Abdou Diouf. Mhm. du ma leen fàtte mukk ba abadan. d'accord waaye man du ma kuñ boot roggante la jox la bal ba si ngay mat ñi ñu lay aayoo ne ne. d'accord ku la xool ngi doon wax nag ci médiation maanaam dox tànki jàmm. ba ñu tudd ci ay sage ku mel ni Abdou Khadre Sissoko euh, ndax ubbil nañ ko bunt yi ndax jàpp nga ni mën na am succès ci mission boobu. ngir jàmm nga dellu si waaw xam nga parti la boo xam ne. Mhm. ci démb ba tey yi parti bi loolu mooy seen cër mooy seen wàll loolu mooy seen sañ-sañ ci parti bi. Mhm. conseil consultatif des sages. may fàttali ko bu baax dem si yàlla Aboubacry Kane yàlla na yàlla saral ay yaxam. Mhm. di ñaanal yàlla alaaji Ngiraan dooy ak ñi mu seqal conseil consultatif des sages ñoom Amidou Kane ñoom Assane mason mhm. ñoom ñëpp. yàlla may leen wér te li ñu bëgg ci parti bi ak fi ñu jaar ak parti bi ak li ñu sant ci ñun yàlla dimbali ñu ci bañ def ko loolu mooy seen warugar te loolu du tey la parti te bi mu nekk dafa amoon na ci parti socialiste tey jii nii bu ñu toogee ba jëmi jamono ñu ne am na ay yëngu-yëngu wala wuute gis-gis wala xëqante mag ñi seen warugar la bu ñuy wax mag man dama ci réew mag mu mel noonu tax loolu ñu ngi ci def Cheikh Abdou Khadir si Sissoko li mu nekk en tant que parti nekk tam nit ñu bokk ci ñi mag ci bureau politique. Mhm. def loolu moo ko war naka noonu la ko. ndax ndax ndax monsieur le maire di nga ko koy yombal parce que ñu bëri euh, ci faucon yi lañ la jàppee ñi nga xam ni ñoo koy xamb. fu non ñi ko non monsieur le maire li ma lay wax nii yaa ngi koy rey. non mais c'est mais noo ko bëggee mais limalay wax nii lu leer la. Ah, ah, mooy ñu bëri jàpp nañ ni yaay xamb coow li bu dee bu dee Ousmane Tanor Dieng la yaa ko ciy xamb yaa ko ciy dugal mais est-ce que di nga ko yombal moom mission boobu mu am ci mu am ci succès. mais dama la bëgg na la man man tuuti naa Ousmane Tanor Dieng yi ma xam man tuuti naa keneen sax tuuti naa ku dul man pour di ko xam ak a manipuler non. du nit ku ñuy manipuler du nit ku ñuy xam. ci li mu xam ci fi mu jaar ci li mu maf ñàndu ci li muy yëg kilifteef ku ko gën a mat amul ci senegal gi kilifa yaa ngi dégg. au vrai sens et au sens au sens noble terme moom la ñuy wax ku ko gën a mat amul ci réew mi je pèse mon mot alors kon foog ne man def naa lii wala dangam xam nga Sénégal dañoo xamul ku tooñ ku fay lu ñu xam d'accord te dañoo gaaw wax ndeysaan ak yërëm dama la wax léegi ne la dëgg fu mu amul jàmm jeex na fa lan mooy dëgg pour yow mais mais nit lëf bu defoo dañoo war a xam ñu ko def d'accord yaa ngi dégg est-ce que jaadu na <coughs> mais ñi naan ñi naan net li coow coow lay indi dama lay rek ma waaw parce que jaadu na nga ne boo toogee ci biir réunion nga ne man nangam ak nangam defuma ko santaane ma ko bugguma ko te sa ñi la jege te la ñuy doon yaa tax ñi doon ko lañ koy lañu lañ fu ñuy dem lañ fay demee yaa leen ko jox ak leneen leneen ñiy def te waxoo dindiwuloo xam nga dama bëgg nit ñi xam dañu dëgmal élection législative 2017 mhm. dëgmal élection au conseil des collectivités locales ñu ne nañ laaj coordination yi nu ñu xalaatee nit ñi naan non duñ ànd ak benn bokk yaakaar nañ laaj parti bi mu wax lu mu bëgg. li ma ci jaaxal déglu ma bu baax non bul ma dox parce que nag li may laaj yëpp lii mooy ji ñu ne nañ laaj base bi mu déterminé wu parce que ñooy fal dégg góom nga ñi doon perem perem yi di wax yëpp kenn ko convoqué base am lu ñu yàkkamte woon jàpp nañ ne dañu bëgg a jag jàmbut na maanaam ñii nga xam ne kenn ki. ñu ngi koy woo ci mbiru yoon te su duloon mandat député ak investisseur am tey ma nga ca yoon di layoo waxuma ne dafa defal deful dañ ñu ñu ba ngay layoo laa wax te nee na nee na ba àdduna tukki bëggatul delluwaat sax seen prison ñii nga xam ne ni ñu yore seen dëkk yi des naa ñoŋ des naa baax ñu ne ah Dakar day te ñoo ko wax ñoom li may wax ni soo suma ñoo ko wax ñu ne Dakar day lu mu néew néew six wala sept député la six ou set député ci liste départementale ñetti góor lu néew néew ma nga ci ak ñetti jigéen ñi njëkkalante pour positionner ne bu ñu ko nekkee njiital suñu mbër man góor laa keneen kële góor la ñun ñaar dañ ko mën a am ak moom yeneen jigéen ñoo bokk ci te ñooñu ko wax ñaar ñii jiitee woon xale yi moo tax ñu nekk député te suñ jiiteetul xale yi moo mënut ñoo am mandat sudul ñu am département wala ñu am circonscription bu jiite donc du intérêt wu parti bi du intérêt wu réew mi du débat de société bu ñuy wutal wala divergence d'idées jigéen la ngay fële dekk ci beneen département boo xam ne moom wóor na ko ne bu nekk candidat du gagné ñu ne ko kaay bu ñu demoon def taxawu Sénégal wala nangam ak nangam yow mën ngaa jiite liste national bi kii jiite liste départementale Dakar pour mën ñu yóbbaale. Mhm. seen intérêt personnel seen positionnement bopp wala bëgg guñ bëgg maanaam kiir laay wala immunité moo leen intéressé. ñi bëgg naan am nag di koy taxan ko guddi taxan ko guddi nag dana formato bu baax. dana formato bu bon yéenu nen la. non dama ne damaa bëgg mu leer nañ Sénégal a jël def hmm. parce que PS moo ñor Sénégal yi waaye PS bu ñor Sénégal yi nag xam nañ seen bopp xam nañ fu ñu jege ko. d'accord xam nañ fu ñu jaar xam nañ fu ñu toll tey xam nañ li ñuy xaar ëllëg. d'accord d' accord Ousmane Tanor mii ñuy bëgg di wax naan ay dafa bëgg dafa añaane ay ñangam nangam c' est pas vrai. d' monsieur le maire ñoom seen tontu li ma ci dégg du lii nga wax. du croquis bii nga def nii ñoom xam nga lan laa dégg ñu koy wax non dama lay wax man li ma li ma dégg ci li ma dégg ñu koy wax laa wax mooy ñoom moo ko wax dans les journaux je vous en prie nga baal ma ma wax la parole s'envole l'écrit reste li ma dégg laa lay wax parce que même léegi la parole ne s'envole plus parce ak euh, archipo mu ngi ma dégg li ma dégg ñoom ñuy wax mooy parti socialiste du parti al toppe du parti yóbbaale ma. du parti non non je vous dama la wax li ñu ah. dégg yow itam. dama la déglu dama la bëgg tontu dama la bëgg dama la déglu dama la déglu baal ma li ñuy wax mooy. parti socialiste du parti al toppe du parti yóbbaale ma yaa tagg léegi sa leader ni moo fi gën a nekk homme d'état ñu jàpp ni warul nekk marionnette. ñoom loolu la ñuy sauvegarder ci Ousmane Tanor Dieng bokkuñu ci ak yow gis-gis donc ñoom bu fekkente ni ñi ngi taxaw ne législative dañuy demal suñu bopp. ñu ne présidentielle dañuy demal suñu bopp ñoom foofu lañ ko teg dañu bëgg parti socialiste boo xam ni mooy bi fi Léopold Sédar Senghor bàyyi woon wax nañ ko Abdou Diouf bàyyi ko fi parti socialiste buy dund parti socialiste bu mën a dem ba nekk président de la république loolu la ñu bëgg donc yéen foofu ngeen wutee gis-gis. ñoo leen ñoo leen gën a bëgg loolu. mais ci seen doxalin loolu amul. monsieur le maire waaw ma ne non euh, euh, yow sa point de vue la. allez-y maa lay déglu. li nga waxoon sa point de vue la. déglu. <laughs> waaw dama la bëggoon ne la waaw. Euh, deux niveaux de réponse ou d'analyse laa lay jox. Mhm. benn bu njëkk bi mooy damay mépriser. Mhm. ñiy wax ay parti parti euh, parti altopé ou parti yóbbaale ma. Mhm. Euh, ñu xee booy waxee noonu. bi ci des naa bëgg nit ñi xam ne parti socialiste toppul kenn daa sos dara. ñaari façon moo am pour yéeg étage. ci ku dul naaw. benn bi nga jël escalier bala nga jël ascenseur su fekkee am na fa te muy dox conquête du pouvoir it conquête partielle la ou conquête intégrale soo conquérir par pouvoir ba noppi it yaa ngi dégg li des mooy y rester le plus durablement possible et le plus utilement possible mm-hmm. ci contexte boo xam ne ni léegi kenn mënatul toog éternellement au pouvoir ndax mm-hmm. limitation de mandat dafa am mm-hmm. li des kon léegi toujours da am reconquête de pouvoir mën nañ la battre comme mën nga gagné deux fois successive te mënatuloo continuer at te faaw nga dem toog ba keneen falu nga door a ñëwaat bëggaat waaw foofu loolu mooy li ne mbir nag soo ko bëgg rek la te dikkagul gis nañu fi li fi dal. mais dikkagul ba kañ. dikkagul ci local ngeen ànd référendum ngeen ànd législative yi ñu dëgmal ma dégg législative yi ñu dégg législative yi ñu yi man maa dégg Ousmane Tanor Dieng ci Walfadjri mu ne ñi ngi jëm ci ay législative mais parti socialiste benn Bokk Yaakaar lay àndal waaw mais ma ne parce que mënul ànd ak opposition bi fi nag ah, loolu man maa ko dégg te loolu ba fekk benn instance sax décidé gu ci waaw moom mooy njiitu parti bi ah, mais moomul parti bi waaw da ngay déglu ma ne moom moom ah, njiitu parti bi ma ne mooy mooy njiitu parti bi am ay prérogatives yu ko parti bi jox te bañ ko koy jox xam nañ ne moom am na prérogatives yu ñu koy jox. mooy engage parti bi. su engagé parti bi it dana ñëw discuter ko wala balaa moo ko def it dafa war. discuter parti loolu mooy indi coow yi nag. déglu rek ci kilifa a waroo jiital sa kàddu na déglu lii la ñuy def ba pare doo ko dem ci instance ba ko fa teg man nga ma Walfadjri parce que maa ko déglu man nga baal ma tudd naa sax euh, organe mais yow maa ko tudd Walfadjri man man fi nga baal ma waaw man maa man laa wax waaw mais même yow nga tudd ko sax waroo cee teg nga baal ma kooku sa point de vue de yow ah. lu dëgg parce que xaj na peut-être euh, waaw euh, lu dëgg mais dama la ne dégluwuma ko mhm. damay déglu groupe boobu mais dégluwuma ko d'accord te man noonu laa gisee àdduna. moo ko wax su ma tuddoon beneen groupe fii dinaa ko wax lendemain référendum yi rek émission bi ko Ndeye Fatou Ndiaye recevoir ci opinion moo ko wax. waaw ba ne. waaw li ma xam man mooy ne bi parti bi dajalee ci secrétaire exécutif. Mhm. lépp ci jiiti parti bi. Mhm. li ñu koy wax ne ko defal ñu nangam. bu bureau pot dajee li ëpp ci njiitu parti bi ne ko lii lañ bëgg nga defal ñu. Mhm. loolu moom mën na koo annoncé. du nag pour déggal ko pour jëmal ko. àgg na moom yaatal na ci ni nañ def démocratie nañ laaj mbaa baas bi. mais kon loolu mu def noonu jalgatiwul yoon. Ah, pour yow ma non jalgatiwul yoon. Ah, man mii porte parole. li waral ñii di ma. looloo ci grave mu wax loo xam ni man dégg naa ko ba mu wax ko ci télévision te yow mi porte parole ne nga déggoo ko. looloo ci grave non déglu déglu looloo naa bañ a déglu wax boobu. Ah. émission boobu mën naa ko bañ a déglu. parce que mën naa ko wuutee man du ma fenn. mais dama la ne man man mii di wax yow. Mm-hmm. ñi ngay tudd fii yëpp ñi naan man dañ may attaqué naan nekkuma porte parole ak yu noonu mais man maa wax ci rajo yi ak télévision yi ak journaux yi lu lu nga wax ne Ousmane Tanor na ko man wax naa ko tey coordination yi positionné yow yëpp loolu la ñu wax même Dakar gii nga dégg ñi ñaan ñoom amoon nañ taxaw Dakar mais léegi tey am na leneen lu ñu ci bokk ci bi taxaw Dakar te xam nga. ñi taxaw nag dañoo xam ne non non du affaire parti affaire taxaw la nangam nangam léegi parti yooyu noonu léegi ànd nañoo même PDS yi yaatal ko léegi dañ ko yaatal ba léegi sax léegi ñoom dañu bëgg bokk ci élection au conseil. Mm-hmm. xam ne ni day nekk Benno Bokk Yaakaar élargi même à l'opposition. Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. ñoo xam ne Benno Bokk Dakar ba taxaw Dakar lañ bokk. bokk ci Benno Bokk Yaakaar ak ñu bokkul sax ci Benno Bokk Yaakaar bokk nañu ne ñoom dañuy wut baati dëkk bi. gis nga. Euh, il faut savoir être modeste. d'accord yow nekk goo président ab dëkk. investir guñ la sax ngay tëg ko ko rëbb. ak a beew ak a bajantu ci nit ñi bañ yegg ca. d'accord léegi monsieur le maire euh, man tontu bi ma indil nga ma théorie bu am solo ci ci ci ci présidentielle ak euh, conquête pouvoir mais question bi ci parti socialiste li ci li ci jaaxal ñu bari mooy doxalinam. parce que parti boo xam ni itam conquête pouvoir yaakaare nañu ko ko bu ñu nee ay législative ñu ne base bi comme ni nga ko waxee dañuy dem ci législative yi ak Benno Bokk Yaakaar o conseil bi nga xam ni dafa aju ci collectivité locale yi ak territoire bi ñu ne Ousmane Tanor Dieng la koy jox donte maa ngi ko dégg mu am lu mu ci wax hmm. loolu nga xam ni ñi ngi ko jëmee ak parti socialiste ndax dañu nar a demaat ndax dañu nar a dem ci élection présidentielle bu parti socialiste dul am mbërum boppam. ndax ci la ñu man Ablaye man waaw. su fekkee fekkente ne waa parti bi may nañ ma léeg-léeg ma wax sama point de vue man Abdoulaye laan jàpp naa ne Sénégal mu ngi ñuy xaar Sénégal bëgg nañu suñu parti bi taxaw waaye loolu su ko parti bëggee wala Sénégal bëgg ko te ñu ko bëgg ñaare ñu bëri sax am na ñu bokk ci parti bi parti bi dafa war a liggéey pour loolu mën a nekk xam nga lii tax parti gagné fu ne nga gagné Sénégal mooy kenn ku ne fa nga dëkk nga taxaw ci parti bi ak waa parti bi noo gagné sa dëkk yaa ngi dégg te loolal mi ngi tàmbale ci bennoo juboo laante biir ormalante lu ñuy def ñu jaarale ko ci dëgg yaa ngi dégg waaye jog bëgg tas sa parti bëgg na parti bi Sénégal dana la wóolu kooku gaw ma ne ñi ngi def loolu seen stratégie seen démarche baax na déglu ma yegg rek mm-hmm. beneen bi ci des mooy élection présidentielle waa ji kuñ xam foo jëm xam fu ñu lay tëru su dee mairie nga ne dañuy dëggoo ku ñu duñ mën a ku ñu xamul foo jëm itam kenn du la mën a ah, gunge waaw mais nag koo xamul foo ñu jëm foofa nag wax foofa nag la wax amee solo wax nag balaa mu am solo ñu wax ko fañ ko a waxee ak kañ ko a wax ak nañ ko war a waxee waa Kajoor nga du ma la jaar du ko tasaare d'accord ma yëggali ne monsieur le maire waaw mënoo fi nekk bokk ci parti socialiste muy muy nday parti yëpp fii ci Sénégal amul benn parti boo mën a yëkkati te candidat bi doo mën a kii la parti socialiste nga taxaw ak man nii di layam layam yi ci kan mooy candidat bi ak noo wax jotu ci ak yooyu mais loolu kay yaakaar ni dinañ ci naw parti bi te nga yor kàddoom. mais jërëjëf Pape Ngagne Ndiaye lu a baax a baax dañ ci naw parti bi xam nga lu tax Pape Ngagne Ndiaye fàttalikul 2007 ak 2012 débat wu candidature naturelle amutoon fi ak candidature de primaire am. primaire dafay am. mais loolu yëpp ci biir parti socialiste. mais très bien mais ñuy wax ah, nii très ñuy wax nii waaw débat am candidat socialiste. wala dafay am candidat Benno Bokk Yaakaar. loolu mooy suñu problème. Ah, monsieur le euh, monsieur le maire. Ah, Pape Ngagne da nga may déglu ma mhm. ne. pas la division dañuy war a convaincre et non contraindre soo bëggee candidat bu parti wóolu da nga koy wane ci xalaat ak gis-gis. xam nga yow. yow non sa wax rek yaa ngi ko jëmale si benn nit. même bu fekkee tudduloo ko oh. je vous en prie monsieur le maire li ma lay laaj que mu nekk kooku que nekk keneen laa wax dama ni parti socialiste ndax Abdoulaye Wilane mii pare na pour nekk pa candidat parti socialiste laa wax dama ni ndax PS dina am candidat man li may wax lu leer la daa la tontu tontu bu rafet sa à dire boobu léegi yaa ngi may wax lii wax la lee mais bu parti bi ah. jàppee ne man am naa xalaat non waxuma da ngay déglu nag dama laaj ne excuse-moi. maa lay dégg dama ne bés bu bi jàppee ne am naa xalaat. Mhm. gis-gis. Mhm. melokaan ak mat ku ma ko nekkee. parce que génn naa ay idée génn naa offre ànd ak ay nit ñoo xam ne nii seen melokaan doy na ma parti ba parti bi mhm. investir ma. mais pare naa pour nekk candidat. y d'accord dégg boole ma la. monsieur maire li nga wax leer na ma dugg ci politique am ambition pour sama terroir. sama réew d'accord am ay idées yoo xam ne nii sama maas. ak ñii may aat fekkante ci jamono. ñooñu ña laa ko bokk di àndal di ko tabax pour nga mën ko nekk day fekk ci biir parti bi. ñu wóolu la waxuma ñu wóolu la bala ñu lay wóolu. ñu am ambition am candidat la l'ambition socialiste euh, loolu euh, laa lay wax ni un candidat parce que dama lay dégg souvent nga naan non buñ bi dina am candidat ah, cest à loolu dafa général soo gisee may insister ci candidat socialiste dama bëgg aussi mu leer waaw ah, Pape Ngagne foofu dama bëgg mu leer naa dama ne mhm. ambition parti politique bu ne y compris PS mais et en particulier PS loolu warul woon sax nekk débat monsieur le maire wax mais warul woon nekk débat mais yéen a ko def débat a def débat candidature parti socialiste yéen i guyam yéen i Dakar yéen i le maire non je vous en prie parce que dama ne warul woon nekk débat tey non euh, ba nga xamee ne warul nekk débat comme warul ko a ko def débat yéen yéen a ko def débat moo tax aussi ñu ñu di ci wax waaw Sénégal gi ñu nekk. Mhm. pour nekk candidat ci benn mairie muy Kaffrine muy Tivaouane muy Fune. Mhm. nit day jóg ànd ak ay nit. Mhm. ci biir partam moo waral coow yi ngay dégg. ñaan benn poste fii ñëpp fukk bëgg juróom fukki di bëgg ko. nga dem ànd ak yeneen sax mbooloo wala yeneen parti wala yeneen kuréel. bu boobaa da ngay waxtaan ak ñoom ci xalaat ak ci lan la ñuy def parce que nañ ko def bu ne nañ ko waxtaanee la. lan la ñuy def luñ koy defee kan mooy doon lan kan mooy daan ngam jàpp fii kan mooy def na le kan mooy indi buum kan mooy indi ñax kan mooy indi bant loolu dafa war a am suy am mais da nga ko seq ak sa waa parti seq ko peut-être ak d'autres nit ñoo xam ne bokkuñ sa parti wala seen parti lañ bokk déglu ma nag dëkk boo fi gis fii nii coalition presque tey jii nii moo yore dëkk kon su fekkee ni tey dañ ciy toll coalition nag leader yi en général ñoo koy def leader yooyu aussi ñun nag léegi ñun léegi ñun dañuy mhm. laaj suñu base ca base ba deux cent personnes y ñu wax ñu fan lañ bëgg ñu àndal ak kan lañ bëgg ñu àndal. d' loolu nag kenn defe ko ko. d' accord monsieur dégg yeneen parti yi nga xam ne ne dañ ñoom da da nga ne xam nga suñ ko seen candidat yooyu parti parti ma Samba ak ma Demba la ñun nag parti patrimoine national la. Mm-hmm. te ñun ñu fi nekk moomuñu ko dañ ko àbb suñuy mag yoral ko suñu rakk ëllëg. Mm-hmm. Mm-hmm. du kenn rek taxaw waa ba jiiba wala waane waa pànk taxaw ci réseau bi di wax rek di ko tëkkoo ko. d' d' accord patrimoine national la parti socialiste. patrimoine national. d'accord patrimoine historique. d'accord parti boobu mooy li ma la wax nga ni warul woon nekk débat c'est-à-dire candidature am ci présidentielle moo warul woon nekk débat ci Sénégal. Ah, ma ne ma ne kan moo leen wax ne xam nga dama laaj léegi dama war warul nekk ma ne la mais warta nekk débat xamul tax. d'accord parti bu ne y compris PS wala PS comme parti bu ne. d'accord. PS comme parti bu ne. li ko war mooy conquérir pouvoir. monsieur le maire loolu lañ nekk ci ci benn question boo xam ne casquette yëpp laay dindi. waaw muy porte parole muy le maire militant simple. Oh. parti socialiste Abdoulaye Wilane ban yéene nga am ci election yi nga xam ne dëgmal nañ ko 2019 buñ ci eggee ak jàmm ci candidature am. fii ne mën na fi xew. non monsieur nga ma laaj lu ne mën na fi xew sa xol a ngeeg yow. sa xel a ngeeg yow. mais attends non non non non xoolal monsieur le maire. man xoolal bul bul jéem a joué sa xol a ngeeg yow sa xel a ngeeg yow dama la laaj dindi casquette yëpp laaj la sëñ bi waaw d'abord lay xew ne nga ma ngi xew ko fekkee monsieur le maire bugguloo ma tontu kon ma ne bugguloo maa tontu ma ne ma ni la bugguloo ma tontu ah non non non attends dama lay tontu question bi am réponse boo xam ne mën nga ma ko wax léegi réponse bi ma la a jox waaw nga naan mën a ah. nga xam ne borom xam-xam wala borom juddu bu nawloon toog man du ma yàpp mhm. wala ma xeeb ma mooy ne mhm. bu ñu yeggee ci deux mille dix neuf li ma bëgg mooy programme boo xam ne nii socialiste yi ñoo ko sooke sénégalais yi ànd ci ñu tëral ko. d' accord parce que du jiw nga ak falu wala ma falu. d' xam nga lu am solo. Mhm. ban politique publique yan politique publique la ñuy def. d' accord pour faj soxla sénégalais yi. pour que Sénégal suqaliku sénégalais yi naat sénégalais yi gis seen bopp Sénégal. d' accord Sénégal. Ah, léegi desal ci militant simple boobu. ndax Macky Sall mën na nekk. candidat parti socialiste bu ñu ci yeggee le président Sall nu bon ni mu ko mën a nekkee <laughs> mooy ci benn bokk yaakaar ngeen ni parti socialiste. dañuy rangé wu ci ginnaaw maanaam yëpp d' accord ci. non waxuma loolu de. non ni ko ni dama la laaj ni mu ko mën a mooy parti socialiste d' ci te loolu pour parti socialiste d' accord ci il faut que CA ko. d' loolu nag àggaguñ ci. d' accord d' accord kon ku la dégg mooy lu mën a nekk la. man ma est-ce que tu crois que man daa may xaw ma luy xew 2019 <laughs> xam nga man entre nous. waaw lam xoolal sëñ bi lam mi di lekk moroom dañoo. man waa Saloum laa yow waa Ajoor nga. dëgg la dëgg waaw man mbaakool mbaakool pire laa. man de mhm. ma xam naa ko waaye nag. dëgg la dama la bëggoon ne la. <laughs> Mhm. Euh, xel xel xel lam mi di lekk de. dëgg la dégg ma laaj man ma laaj. ma ne la nu mu mën a nekkee. maanaam parti sax d' accord ci man la pour parti sax d' accord ci koy bëgg. d' accord monsieur maire ñu ñëw ci ay questions d' actualité yu xaw a gaaw rek euh, question yoo xam ne moom question d' la yu général la quand même euh, l' affaire Nafi ngoom Keïta ak OFNAC gis nga ni mu demee euh, dégg nga déclaration yi nga xam ne def na ko ba yóbbu na dàq biñ ko dàq ci kanam cour suprême nan nga ko gisee. dama abord talu moon loolu nag wax bi débat bi am boobu maa ngi Kaffrine. ci mhm. bënd mi. Mhm. defe naa lu mat weer ak lu ko ëpp maa ngi toog Kaffrine bu ma xëyee soo ma ngoon jot maa ngi ci Kaffrine su ma génn dëkk Kaffrine bi mhm. maa ngi ci samay tool mhm. maa ngi ci tollu mboq mi wala maa ngi tollu gerte gi maa ngi tollu sunu si d'accord te d'ailleurs foofu sax maa ngi ñaan yàlla nit ñi continuer ñaan mu taw waaw baal ga rek mbënn mi ni mu ñu méttee mhm. ndax euh, gis naa sunu yi ni ñu taxawee ren taxu léegi yëgoo ko woon mais wax naa la ko waaw moom laa la bëgg a wax ma ne la léegi nag man euh, balaa ma wax ci biir dama koy xam li ma li ma jàpp ci sama xam-xam bu néew mooy ne ki la fal moo la mën a folli mhm. waaye bu lay fal te xam ne ab diir la la war fal te diir boobu fekk ab ma jeexut du la folli loola itam moom moo xam ban waxtu la la faloon mhm. li ma ci dégg daal mooy ne ñoom waxtu wañ ko faloon ak waxtu ko folli nee nañ ñoom app bi mën na mhm. loolu nag su fekkente ni ñoom loolu lañ jàpp nañ leen ko nangul ki mu soxal bu fekkente ni moom loola jàpp ne loolu nekk na ba mu jaral ko mu dem su fi mbaxana nekk benn wala ki mën a wax dëgg ak atte nekk mais na nangu atte bi am mu jeex tàkk coow du amul coow d'accord ci wàllu question d'actualité maintenant maintenant maintenant ci affaire affaire liggéeyu mission OFNAC mhm. mission bu baax la lu war la waaye am réew mën nañu sos ci réew ma dara mu commencé dund ñu gis ci ak sikk wala ak matadi wala ñoo xam ne war nañ ko mën a ñoŋal mhm. dafa naa laaj na ñoŋal d'accord ndax euh, xaw yu sutura ak yooyu jàpp naa ne balaa nga ko def da koy teg foo xam ne nii kenn mënu koo dingat d'accord euh, CREI ministre de la justice Sidiki Kaba li ma wax ci CREI itam moom moom laa doon wax rek CREI yi mais moom dafa dafa dafa daf ni génn nañ phase bu njëkk bi ñu ngi dem ci beneen phase ak CREI alors boo doon évaluer phase bu njëkk bi est-ce que di ci am loo teg sa loxo yow waaw man li ma jàpp ci CREI man mooy ne euh, loi bu ne ak moment bañ koy sos mhm. waaye dana àgg jamono boo xam ne nii loi boobu noonu réalité yi am dana tax loi bi war a ànd ak jamono méngoo ak jamono. d'accord jàpp naa ne dañu war a réformer CREI yi man. Mhm. sama xalaat bu gàtt. pour may sa pour pour lépp lu wul ak droit de l'homme droits humains ak état de droit bu bu bu nekkati ci CREI yi. d'accord alors monsieur le maire euh, au conseil de collectivités locale ak territoriales bi ñu ngi ciy tudd Ousmane Tanor su ko rëccee dem ci keneen yeneen i loxo. d'abord li ma li ma bëgg a wax mooy man personnellement jàpp naa ne au conseil des collectivités territoriales. Mm-hmm. mu ngi euh, bokk na ci ci kuréel yoo xam ne war na mën a am Sénégal. Mm-hmm. bu doon sama sago man Sénat lay doon. Mm-hmm. yaa ngi dégg man naa wax de bu doon sama sago Sénat lay doon. ak prérogative Sénat comme France comme bi ñu amoon ñun waa Parsef bi ñu fi bëgg bàyyi woon ak même bi fi Abdoulaye Wade bàyyi woon donte kon composition bi baaxuloon. yaa ngi dégg maintenant tàpp naa ne lu ño lu mën a ñoŋal décentralisation la ak yorinu gox yeeg gox goxaan bokk moomee fi. donc te kon am na lu bëri lu mën a wax ci loolu loo xam ne nii bu ñu toogaatee ci beneen émission mën naa ci wax ci affaire acte d'accord euh, pour man du ma Samba ma Demba yor ko mu am solo lii waaye li ma ci bëgg a yokk mooy ne Ousmane Tanor Dieng benn cër jomb ko ci Sénégal. Mhm. njiitu réewum Sénégal président de la walla wala beneen bu mu mënti doon. jomb ko waaye nag cër bi mu xeexal boppam cër cër yaakaar naa boobu nag moom moo mooy dàq waaw non mais lu mu mënta am sa bopp yaakaar naa ko ca li ma a wax mooy cër bu mu mënta am Sénégal rek taxawaay koy jox ah boo xeexal sa bopp man laa wax li ma gëm dama ne cër mhm. bu mu mënta am Sénégal taxawaay moo koy jox d'accord mhm. Mhm. yaa ngi dégg ñu dégg ko wóolu wala ñu fal ko wala mu gañe loolu ci mënti dégg rek taxawaay moo ko jox voilà te it lu ma nangul premier ministre war naa ko nangul kiñ ne mooy nekk ëllëg président au conseil des collectivités territoriales parce que président bi fal mu définir pour de l'action waaye premier ministre la nommé. bu ko rëccoon nag dugg ci yeneen loxo maanaam ñu jox ko keneen ku dul Ousmane Tanor man awma bon parce ngi dund ba nag te ngi jëriñ Sénégal te nekk ko. d'accord double nationalité bi dégg ni ñu koy waxee fan yi dégg nga foofu itam sama point de vue loolu leer la. Mhm. dama jàpp ne am réew. Mhm. ku yor gafakaak réew wala koppar réew wala nga fay yor sañ-sañ yi nga xam ne nii dafa am solo benn bi waroo am beneen nationalité. mais loolu lu leer la loolu constitution bi réglé na ko exclusivement sénégalais loolu constitution bi bu ñu koy wax kay. ñoom lañ ca bëgg a boo ci nekk. mooy maanaam nag da nga war a dindi sa beneen nationalité juróomi at. laataa bokk ci jongante loolu mooy wax ji loolu tam ba ñu njort ni am na ku mel ni Karim loolu tam. waaw loolu tam loolu dama la wax ba mhm. loolu nañ seet. Mhm. intérêt réew mi fekk at ak at ci kanam. gis nga El Hadj Pape Ngagne xam nga wax nañ léegi ne candidature indépendante am na fu ne. Mhm. man mi woote naa constitution bi waaw laa wax. Mhm. waaye boo réfléchiré am na lu mën a xew ci affaire candidature indépendante loo xam ne mën naa tasum réew. Mhm. mën naa indi unité nationale bi mu menacé ko comme lan mais yow candidature indépendante waaw mais xamuloo ku ñëwee comité bi réew. indi xaalis boo xam ne ni ay jaay ko ay jaay di ko jox wala ay jaay ko drogue wala leneen leneen mu ñëw jënd ay suffrage loolu wala nga dem ci benn dëkk boo xam ne ñaan la ñu santul nangam duñ fi nekk candidat wala nga dem ci dëkk boo xam ne ñaan la xeet sangam wala askan sangam wala làkk sangam duñ fi nekk candidat loolu laa wax ne dañ ko war a seet dañ ko war a encadré mhm. yaa ngi dégg mhm. parce que il faut ñu def attention comme également toog ba ne ba mu jëppitaw rek nga nekk France juddoo fa nekk fa dem xamaloo ay drogué ñoo la jox xaalis trafic drogue jox xaalis nga jékki-jékki rek ñëw créé benn kër ñëw na ma nekk ci ku yor parti politique ma <laughs> loolu moom ci nit ki la nationalité bi ak diir bi ma ne kon ki ko def nag cinq ans avant kooku de mënees na ko topp xam-xam la mhm. loolu laa la bëgg a wax man waxuma ci affaire parti politique parti politique moom mais parti politique dafa am lu ko yoon danga war war app bu ne nga ñëw jëbbal sa état financier. di wax sa xaalis fu mu jëyee koo. te mën nañ laa ak saytu contrôle la. waaye Sénégal bu toog wala nit ku toog fa rek ba élection des. 6 mois set mois bala un an nga yónnee bu juret ak sa xaalis tasaare réew. ah loolu war nañ war a seet. d' accord merci monsieur merci monsieur le maire maa ngi lay gërëm bu baax ma bàyyi la nga tàggoo ak mbokk téléspectateurs yi. Mm. bu fekkee nga message itam booy booy booy yeggee askan wi ñu ngi la ciy déglu. Euh, ma li li may njëkk a wax mooy ñu ngi toll ci wàllu tànn au conseil de la de territorial ci dëkk yëpp et ci biir parti yëpp am na ay coow am na ay xëccoo c' est normal que ñi am ay bëgg-bëgg te bëri wuute waaye gannaaw dañu dégg ne en tout pour benn bokk yaakaar dañu wax ne fu ñu déggoo nañ jébbal yëpp suñu kilifa muy leader Benno ak président Macky Sall te nañ ñëpp tënku ci ku ñoo ñu tànn ñu ñoo ñu tànn ñu wote leen. Mhm. waaye li ma bëgg a wax di tax may wax loolu mooy ne nit ñu fi nekk nit ñu am bëgg-bëgg ne maa war a gën a yelloo kii lii wala maa ko war a yelloo kii lii mais yàlla moom nëppee na pare yàlla suñu borom xam na ñi ko war a fal ba pare. Mhm. ñi ko war a doon pare te kenn mënu cee bokk mbaa nga doon ko te yàlla dogalu ko. Mhm. ak lu président ak lu nit jubóo jubóo ak lu mu la ko yéene yéene. amaana sax bu ñuy tànn da gën ci xelam. donc ma bëgg nit ñi delloo seen xel Sénégal dafa am ay baax am ay valeurs yoo xam ne ak lu jamono mënti tar tar tar waruñ ko bàyyi waruñ ko fàtte. Mhm. loolu moo tax ma bëgg euh, ñu ñaanal Sénégal ak sénégalais yi nga xam ne ni bu nekk lañ candidat man nekkuma candidat. Mhm. parce que man mosuma toog di xëccoo lenn. Mhm. wax dëgg yàlla xanaa liggéey bi may liggéey ci mairie Kaffrine bi moom xam gi ma xam ñi ma ko séqal ak lañ fay def te waa Kaffrine mën la wax la ma fa def tey. loolu rek moo tax ma taxaw di taxaw encore plus maa ngi ñaan également nit ñi ñaanal yàlla suñu kilifa ji yi. Mhm. Euh, surtout wàllu yi. Mhm. Euh, ndax am na fu ñuy féete Sénégal foo xam ne nii. Mhm. ku àggul fenn fi ci baati nag maqaam mën na ko xam. enfin nañu ñaan nañu bàyyi xel xale yi. yàlla ñu leen dénk ñun ñoo leen sàkku bu am leen. am lu ñu war suñu digganteeg ñoom. ba tax na lépp lu ñuy wax baa ñu koy def baa ñu koy melokaanoo ci réew mi ba ci réseaux sociaux yi mm-hmm. nañ ci bàyyi xel xale yi ngir ëllëg Sénégal lan la war a doon ak lan la war a mel mm-hmm. enfin nawet bi nañ ci continuer ñaan mu continuer taw mm-hmm. li ma gis ci réew mi ñu koy bay ci ceeb di ko bay ci dugub di ko bay ci mboq di ko bay ci suuna di ko bay ci bësi su yàlla defee ndox mu taw ba diir boo xam ne nii lépp ñor na am naa yaakaar ne déwén ci heure bi nii bu ñuy dem élection législative sax nit ñi ñu tal dañuy nekk ci ci ci tawféex enfin gouvernement li ko war mooy lu président santaane mu def ko na ko def Kaffrine encore une fois de plus li ñu dund ren jii te mënoon ko bañ a dund suñ defoon la ñu war def 2013 ak 2014 te loolu itam da waa gouvernement am na ci responsabilité parti politique am nañ ci responsabilité waaye tam askan wa ko nangu ba nax leen ci ñi jot naan bëgguñu lii wala bëgguñu leen am nañ ci responsabilité. Mhm. réew boo jiitalee sa président bi da koy ormal di ko fonk di ko sagal. Mhm. dëkkit boo jiitalee sa doom mu lay àddul di la waxal di la lijjantil te ñi mu ko séqal wekk ko naw ko danga koy jàppale ci liggéey ndax. bu fukki nit di gas fukki nit di suul. fay pour ñu jërëjëf jërëjëf monsieur le maire kon mbokk yi mu nekkoon seen émission faram fàcce ñu koy gërëm bu baax Abdoulaye wilaan euh, ci wuy si bi mu ñu wuy si yaa ngi ma koy wax ni ma Kaffrine nga bàyyi ko. ñëw uniquement pour exclusivement pour euh, télévision Futur Média euh, loolu jàppal nii ñu ngi la ciy gërëm bu baax ci yëg-yëg boobu nga xam ni am nga ko ñu ngi la koy delloo kon mbokk yi ñu leen di jox daje incha allah ci beneen jotaay ak faram di gërëm Babacar Fall ci ni mu ñu jàppale ci émission bi Euh, di gërëm itam la régie Pierre Da Silva ñoom Alioune ñoom Cheikh Faye euh, Tunkara ak euh, Bamba fàttewuñu Daouda ñi ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox daje àllarba ba lay ñëw bu ci àllande jërë ngeen jëf. trop c'est trop. mbir mi dafa ëpp yi sa jógee samay doom samay doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement bi. procédure laa respecté dañ song ma dóor ay coup de sommation. mais ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. mandat bi nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemal ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi